sëriñ soye bu mbàkke sëriñ soye bu mbàkke mi ngi ganee àdduna bisub talaata juróomi fan ci weeru koor ci atum 1335 ci gàddaay gi talaata juróomi fan ci weeru koor ci atum 1335 ci gàddaay gi ci dëkk bu sell bële di njaareem boobu waajuram sëriñ Touba Seexul Xaddim mi ngi ci résidence surveillée mu tombeeg bisub mardi 26 juin 1917 mardi 26 juin 1917 ci dëkk boobu di njaareem la sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddim feeña jamono jamono di doomu soxna Mareema Jaxate ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim am na nag ku mbokkal Xadiim Rasuul ak kii di soxna Mareema Jaxate muy magam jo di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ibnu soxna Mareema Jaxate ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ak moom sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu soxna Mareema Jaxate ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëriñ Suhaybu Mbàkke kenn rek la bokkal waajur wu jigéen muy sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ soin bu mbàkke bi matee am aw tur nag sëriñ tuubaa xaadim rasul mi waajuram sëriñ mohamadu jóob dagana la yónni woon ngir mu wutal ko aw tur moom sëriñ soin bu mbàkke xamul itim kii di waajuram wu jigéen di soxna mariama jaxate ndax bi mu feeñee jamono ba am at tuuti la waajuram wa soxna mariama jaxate génn àdduna sëriñ tuubaa xaadim rasul mii waajuram wax ne nañ ko it kii di soxna xari mbaar sil mi nekkoon waajuru sëriñ abdu samat mbàkke ibnu sëriñ tuubaa seexul xaddiim sëriñ tuubaa seexul xaddiim doon sàkku ci soxna xari mbaar boole sëriñ soye bu mbàkke ak doomam jooju di cheikh abdou samat mbàkke ibnu xaadim rasuul boole yor kii di sëriñ soye bu mbàkke xamul waajuram soxna mariama jaxate ndax bi mu amee lu tolloog atum yàlla ci la waajuram wa génn àdduna di soxna mariama jaxate soxna mariama jaxate moom sax bisub keroog bi mu génnee àdduna sëriñ tuubaa xaadim rasuul mi ngi doon sàkku ci mag ñi ñu denc ko ci wetu soxna aminata loo ci guy texe keroog mi ngi doon xamal mag ñi di leen wax ne mariama jaxate mii de mook aminata loo mii ñooyam wàccuwaay ñooyam wàccuwaay googu xaadim rasul nag doon wax mag ñi feeñ na lool ci ñaari jëmm yooyu ndax boo jëlee kii di soxna Aminata Lo ñaari bant rek la am ak xaadim rasul muy cheikh mamadul moustapha mbàkke ak cheikh mamadul lamin baara mbàkke soxna mariama jaxate itam ñaari bant rek la am ak xaadim rasul muy sëriñ tuubaa cheikh abdoulahat mbàkke ak kii di sëriñ soye bu mbàkke nga jëlaat nag kii di soxna Aminata Lo ñaari bant yooyu mu am ak xaadim rasul di cheikh mamadul moustapha mbàkke ak kii di cheikh mamadul lamin baara mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke toog na xalifa général général des mourides waaye cheikh mamadou lamine baara mbàkke ibnu xaadim rasul toogul xalifa général des mourides waaye bari lu mu bind lool nga jël kii di soxna mareema jaxate moo meññ itam kii di sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mbàkke ak kii di sëriñ sohaybu mbàkke waaye sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mbàkke itam toog na xalifa général des mourides waaye kii di sëriñ bu mbàkke toogul xalifa général des mourides waaye moom itam bari na lool lu mu bind nga jëlaat kii di soxna aminata loo ñaari bant yooyu mu ama Mbàkke ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke laataa ñuy xàmmee soxna Aminata Lo génn na àdduna ñu jël Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke jébbal soxna Awa Busso ngir mu gimbee fa nga jëlaat soxna Mariama Jaxate ak ñaari bant yooyu mu ama Xaadimu Rasuul muy sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ak kii di sëriñ Soye bu Mbàkke ñoom itam laataa ñuy xàmmee soxna Mariama Jaxate génn na lii di àdduna ñu jël sëriñ Soye bu Mbàkke jébbal soxna Xari Mbaar Sill génn na àdduna nga jëlaat kii di soxna Aminata Lo jëlaat soxna Mariama Jaxate ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu tëddaale ca armeer ya xaadim rasul wax ne ñoom ñaar ñoo bokk wàccuwaay kon sëriñ Sohaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa xaadim rasul kooku nag mooy waajuram di soxna Mariama Jaxate bi matee dal alxuraanul karim waajuram xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bu mu ko dalalee alxuraanul karim moom waajuram xaadim rasul la wooluwaat nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate jox ko ko moom sëriñ Sohaybu Mbàkke ngir mu jàngal ko alxuraanul karim bisub kero sax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim mi ngi wax sëriñ amsatu jaxate di ko wax ne nag joxuma la soin bu mii ngir nag lu olof njaay baaxoo di def ngir nit ki su amee doom ñu jébbal ko nijaayam waaye dama la ko jox ngir li ma def ci yow nga def ko ci soin bu mii sëriñ amsatu jaxate moo jàngal alxuraan nag kii di sëriñ soin bu mbàkkee ci tuubaa waaye booba nag ci daaray sëriñ amsatu jaxate boobu ku ñuy wax sëriñ alsaan jaxate ma ngi fa woon di jàngale sëriñ doyen bu Mbàkke kon ci loxoy sëriñ Alsaan Jaxate la nekk ci kër nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate ba bind nag lii di kaamil bi waaye nag bi muy bind kaamil fekku fi waajuram fekk na waajuram nag génn nag lii di àdduna ci atum 1927 kaamilam boobu nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke lañ ko jébbal ci tundoodi nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate nag moo def loolu fopp kaamilub sëriñ Sohaybu bu Mbàkke jébbal magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ci dëkk boobu di tundoodi bisub keroog sax bi sëriñ Amsatu Jaxate di doyen bu mbàkke kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke ma ngi koy xamal ne kaamilub sëriñ tuba cheikh abdoulahad mbàkke mi ngi nii kaamilub sëriñ tuba cheikh saalihu mbàkke mi ngi nii kaamilub sëriñ soye bu mbàkke mi ngi nii lii nag la ma seen waajur wa santoon ci ñoom ndax doon na ma xamal ne li nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci ñoom gisatuma seen waajur wa nag di xaadim rasul yow mii nag yaa fi nekk seen waajur moo tax ma bëgg a fob seen kaamil yi jébbal la ko loolu la sëriñ amsatu jaxate waxoon cheikh mamadul moustapha mbàkke mi nekkoon magu ñett ñooñu sëriñ tuba cheikh abdoulahad mbàkke nak mo len magoon waye mom bi mi bind kamilam ba kamilam di nopi, khadim rasul mi wajuram mi ngi fi waye jamono joji nak ñaari rakam yi di serigne soy bu mbàkke ak serigne touba cheikh saliou mbake ñi ngi bind nak li di kaamil sëriñ amsatu jaxate bëggoon a xaar ba ñaar ñoñu bind ba pare mu fabando ñetti kamil jeebal khadim rasul waye lata nak ñaar ñoñu di bind ba nopi la khadim rasul genn aduna lol mo waral serigne abdullah khat mbake serigne touba cheikhul khadim teggu ko beut waye magam je cheikh Mustafa mustapha mbake lañ ko jébbal bi sëriñ Souhaïbou mbake nak di jang ci kër nijaayam jooju di sëriñ Amsatu Jaxate bobu nak seen benen rak ja di serigne Abdou Samad mbake ibnu Khadim Rasul Mangafa nga fa waaye ñoom ñett ñooñu nak ñoko ñeuk bind kamil lol mo waral nak seen ñeenti kamil yoy Cheikh Maodo Moustapha Mbàkke jotandoo wu ca ginnaaw bu sëriñ Amsatu Jaxate joxe ñetti kamil yoy ba nopi le seen rak ja nak serigne Abdou Samad mbake dogu bindub kamilam ñom ñent ñooñu ño nek ndo won ci loxoy sëriñ Amsatu Jaxate ginnaaw bu Cheikh Maodo Moustapha Mbàkke jotandoo seen ñetti kamil yoy muy bu serigne Touba Cheikh Abdou Lahad mbake bu Serigne Touba Cheikh salihou mbake ak Serigne Soye bu mbake Cheikh Mamadou mustapha mbake nak mi nekkon sen mak ban len nak ci daaray tundo di joju abu Dir. ñu wey nak nekk nak ci loxoy Serigne Ahmadou mukhtar Jeng guyar bobu itam ma ngay jàngale alxuraanul karim ci daaray joju di tundo di ginaaw Serigne Ahmadou mukhtar Jeng ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke jëlaat na len nak jébbal len Serigne Habibu mbake imam ngir ñu weyel fa nak senum jangum xam-xam Serigne Habibu mbake imam mom sa bisub keroog bi len ko Cheikh Mamadou mustapha mbake di yobbu ñeenti do doomu aadama la fa yóbbuwandoo muy cheikh abdoulahat mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ak ku ñuy wax sëriñ abdoulahi jaxate moom moo leen ñeenteeloon mu teg leen ci loxoy sëriñ habibu mbàkke ngir ñu wéel fa seen njàngum xam-xam ci seen ndigalul mag cheikh mamadul moustapha mbàkke ci loxoy sëriñ habibu mbàkke imaam nag lañ mujje jànge nag lii di xam-xam ñu delsiwaat nag ci seen loxoy mag cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ soye bu Mbàkke nag féeteeg Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba ci atum 1941 ci 1941 nag la dem nag ci dëkk bu ñuy wax mbaam jigaan nekk fa nag di liggéey lu fa ñoree wala lu mu am yit magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ndax moom la defub sëriñ te moom lay xoole waajuram Xaadim Rasuul ci wetu mbaam jigaan googu nag am na dëkk bu ñuy wax Lumbel Sayer ma nga fa foofu nag la sëriñ soin bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul nekkoon di liggéey ba ci atum 1942 mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax Kàbbu Gay Gueye moo ko fa dogaloon ay tool mennum at rek la fa sëriñ soin bu mbàkkee bay ci atum 1945 dëkk bu ñuy wax bukki barga itam kii di sëriñ soin bu mbàkke amoon na fa ay tool ci atum 1949 amaatoon na ay tool itam ci dëkk bu ñuy wax mbaraama jóob mbaraama jóob bii sax ci atum 1954 la bàyyi tool yooyu ci at moom itam la ko jox ku ñuy wax sëriñ moor may ngir itam mu féete fa ci atum 1975 am na dëkk bu ñu doon wax Touba Mouride kii di sëriñ soin bu mbàkke amoon na fa ay tool victime di fa bay ci atum 1971 nag la gor ab quartier ci Touba ñu koy wooye Touba ñànka Touba ñànka nag moo tolloog nag fii forage su Aynu Rahmati bi nekk muy forage biy def ndox mu neex mi ba tey ñi xamul foofu moo taqaloog université bi ñuy wax université baylaat ba tey itam moo dend ak fi ñuy wax jumaay Serigne Cheikh Saliou Mbacke ci corniche su Ndiouga kebe bi foofa bi ko Serigne bu Mbacke di gor ci atum 1971 ñànka lañ ko doon wax waaye Serigne bu Mbacke moo ko tudde Madiyana ak turandoom wa ci dëkk boobu mu nekkoon féete woon fa ñu ko daa wooye aboo borom madiyana wala aboo madiyana foofu itam bi mu ko goree ci atum 1971 daaray alxuraan la fa defoon di fa jàng ak di jàngale sëriñ soye bu mbàkke nag sañtul ab dëkk waaye bari woon na nag ay dëkk nag yu mu jaar ngir doon fa liggéey ak kër gi mu nekkoon ci Touba ba génn fi àdduna te denc ko sax ci péncum boppam moomu di kër gi ñuy wax kër sëriñ soye bu mbàkke waaye kër googu di kër sëriñ soye bu mbàkke wax leen nag li ci jotale sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasuul bi ñuy tuut tànk moo magam ja sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mbàkke ak magam ja sëriñ tuuba cheikh saliwu mbàkke ba ni ñu nekkee mag seenuk tàggoo bariwul woon dara daanaka ñoom ñett la sëriñ tuuba xaadim rasuul mi seen waajur jébbalandoo sëriñ amsatu jaxate ñoom ñettitim lañ fabandoo benn bés seeni kaamil jébbalandoo seen mag ja cheikh mamadul mustapha mbàkke ñoom ñettitim la cheikh mamadul mustapha mbàkke fabandoo ci benn bis jébbal sëriñ habibu mbàkke imaam ñoom ñetti itim saa sone ci seenug dund ñaare foo masaa gis kenn ki da nga gis ñaar ña ca des kon seenug tàggoo ci diirub li ñuy nekk bariwul ba teyit firnde bi néew na lool nga gis taalibeb sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke taalibeb sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ba ci taalibeb sëriñ Sohé bu Mbacke ku la ci léeralut ne la ci diw laa sukk jébbulu pour nga xam ko dana nekk lu jafe lool njaboot gi itam war nañoo sàmm loolu bu baax a baax a baax a baax ndax ñett ñooñu kat daanañ ko jëfe ba tax na itam seeni taalibe itam feeñ na ci lool sëriñ tubaa seexul xaddiim ak njaxate ba tey àndum ñett ñooñu fii sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke dëkke ci jumaa ji kër cheikh abdoulahat mbàkke la woon waaye cheikh abdoulahat mbàkke moo ko mujj bàyyee sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke ba tey tim fee sëriñ yi bu mbàkke dëkke di fiñ ko denc kër ga ca cosaan cheikh abdoulahat mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul moo ko laajoon cheikh mamadul mustapha mbàkke booba bëkk néeg bu ñuy wax sëriñ mouhamadou lamin gay firdawsi la fa xaadim rasuul dëloon moo fa wéyandi Mamadul Moustapha Mbàkke nag yore ndi kër ga sëriñ Mouhamadul Lamine Gay moom Firdawsi la sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke nag doon sàkku nag ca kër ga mu di ko xamal ne kër gi dañ ma koo dénk sa waajur wa Xaadim Rasuul moo ma ko joxoon waaye jamono jii nag dama laaj ko sa mag ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ginnaaw bu ko Cheikh Abdou Lahad Mbàkke laajee nag kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke la ko Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jébbaloon kon lii moo ci jottalee Cheikh Abdou Lahad Mbàkke Cheikh Abdou ak sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou daanañ def léeg-léeg suñu ñëwee Touba nekk fa wala ci ñoom ñetti tim ku fi ñëw Touba féete fa waaye nag kër gi li ci jotale nag kii di Serigne bu Mbacké ba mu féete ko moom ko ci atum 1945 bi seen mag ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké nag génnee nag lii di àdduna boobu Serigne bu Mbacké mi ngi foofu nag ci mbaam jigaan ci tool yooyu mu amoon denc nañ Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ginnaaw bu mu génnee àdduna ba mu am ñaari fan wala ñetti fan ndaw li doon wër Serigne Souhaïbou Mbacké doog xam ne mi ngi ci tool yooyu di mbaam jigaan ginnaaw bi nag lañ ko yëgal ne sa mag ji Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke génn na àdduna fan yi weesu ci la nag sëriñ Souhaïbou Mbàkke bàyyikoo nag ci dëkk boobu nag di mbaam jigaan ñëwaat nag ci Touba ngir fekke si nag bisu magam ja ci ginnaaw bu mu génnee àdduna te moom yëgul ginnaaw bu mu ñëwee Touba nag ci la dogu ne su génnatul Touba ba lu mel nii nag di xew ginnaawam te yëgul tinul duutul am ci booba itam ci la ñëwee nag toog nag ci kër googu nag di kër sëriñ Souhaïbou Mbàkke ci pénc moomu daat fay taxawal nag luñ tudde daaray ci la nekkoon nag di liggéeyaatale xaadim rasuul ba ni mu génnee àdduna ci atum 1991 kon li ko dale ci atum 1946 ba ni mu génne àdduna ci atum 1991 sëriñ soye bu mbàkke génnul tuuba ngir xew-xew booba amoon ginnaawam di magam bu génn àdduna te yëgu ko wala bu génnee tuuba itam fu mu dem itam du fa fanaan guddi guddi ilaa tuuba ñu man koo xayma ci diir bi mu toog génnul tuuba wala su génnee tuuba itam fu mu dem du fa fanaan ci diirum ñeen fukki at at ak juróom benn ci diirum ñeen fukki at ak juróom benn yooyu nag la toog Touba taxawal nag daaray alxuraan di fa jàng ak di jàngale ba tax na nag yoonu murit itam bari na lool ay kàngam yu ñuy coow ci kër googu lañ génne muy péncum sëriñ soye bu mbàkke wala ci loxo yi sëriñ soye bu mbàkke daara jooju mu taxawaloo nag di daaray alxuraan ja ñii nag la fa njëkk a jàngal alxuraanul karim ci péncum boppam moom moom sëriñ soye bu mbàkke doomam sëriñ ahmadu mbàkke di kim faye xaadim rasuul ñu koy wax sëriñ toog toogaayam jamono ji ñaarelu nit bu ando nak serigne cheikh say mbacke moy ku ñi wax serigne abo mbacke ibnu cheikh abdul ahad mbacke ibnu khadim rasul serigne touba cheikh abdul ahad mbacke nak ñeekon na am am serigne abo mbacke serigne abo mbacke moma nak le serigne soye bu mbacke jangal fofu ñettelu doomu adama nak bu bokkon ci kérok bi mu taxawalee daara ja ñeek fa faa moy ku ñi wax sëriñ seexuna mbacke doomu sëriñ abibu mbacke imam la won ak ku ñi wax serigne soye bu fall doomu serigne mustapha fall serigne mustapha fall Fall nag moo nekkoon taawub maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ñeenti doomu aadama yi nag la sëriñ soye bu mbàkke njëkk jàngal alxuraan ci pénca moomu ginnaaw bu mu taxawalee daara ji muy sëriñ Cheikh say mbàkke di doomam sëriñ aboo mbàkke di doomu sëriñ Touba Cheikh Abdoulahad mbàkke sëriñ Cheikhouna mbàkke di doomu sëriñ bu mbàkke imaam ak sëriñ soye bu Fall di doomu sëriñ Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul fa njëkk a jàngal ginnaaw bi nag la wéy di màgg ba tax na itam nag lii di yoonu murit niiw na lool ci kilifa yi kuñ ne la jaarul ci péncum sëriñ soye bu mbàkke doomu xaadim rasuul bi yàlla nañu ko yàlla fayal kàngam yooyu ak doomu soxna yooyu jaar nag ci daaray sëriñ soye bu mbàkke ñu man cee ràññe sëriñ fàllu mbàkke imaam ibnu cheikh abdu xaadir mbàkke ibnu xaadim rasuul sëriñ fàllu mbàkke moom sax moo nekkoon imaamu guy masaalikul jinaan ci ndakaaru sëriñ fàllu mbàkke moom itam moom lañ dénk julli korite ak tëbaski ci dëkk bu sell bii di tuubaa ibnu xaadim rasul sëriñ jiili mbàkke ibnu sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mbàkke ibnu xaadim rasul moom itam jaar na ci loxoy sëriñ soye bu mbàkke ci péncam moomu sëñ jiili mbàkke moom moom lañ jox université bu tuuba sëriñ muudu abib mbàkke bu sëriñ abdoulahi mbàkke boroom dër bi moom itam jaar na ci loxoy sëriñ soye bu mbàkke ginnaaw bu mu jógee ci loxoy sëriñ soye bu mbàkke sëriñ soye bu mbàkke moo ko yar ba fab doomam jébbal ko muy soxna fatja mbàkke bintu sëriñ soye bu mbàkke kii di sëriñ basiiru mbàkke moom cheikh Xaadir Mbàkke mi yor kàddu xalifa général des mourides jaar na fa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu jaar ci loxo loxoy sëriñ bu Mbàkke waaye ci gàttal rek dañ leen doon tuddal ñii waaye ku jaar ci loxo loxoy sëriñ Souhaïbou Mbàkke tey buñ ko doon lim Tuubaa gépp la ñuy wax ne jaar nañ ci yi sëriñ bu Mbàkke ndax ku fa jaarul itam ka fa jaar jàngal na la daaray sëriñ bu jooju ña fa jaar takku na lool loolu itam taxoon na sëriñ Souhaïbou Mbàkke nag demoon na ba daara jooju nga xam ne moo taxoon na nag kii di sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke nag goraatoon jeneen daara ci atum 1971 mu nekk ci ginnaaw daara jooju di ñànka muy fi tolloog université Cheikh Abdou Lahad bi tolloog nag fi forage ndox mu neex mi nekk di ay nu raxmati de ko ñànka daara jooju itam bari na ñenn ci donga yi itam foofu la ñu jaar lépp rek sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke jublu ci liggéeyal waajuram xaadim rasul ci alxuraanul karim ku ñuy wax Baye Sëriñ Géey la joxoon daara jooju muy daaray ñànka mu nekk fa itam di jàng ak di jàngale goraatoon na jeneen daara itam jëm ju ñuy wax daaray Baye Omar Sëy ñaari daara yii nag muy daaray Baye Sëriñ Géy ak daaray Baye Omar Sëy ñaare dong yi gënoon a ës nag ci daara ji foofu nag lañ leen daa yóbbu itam ngir nag ñu gën a mën a mokkal nag li di alxuraanul karim loolu itam tax na moom Sëriñ Soye bu Mbàkke itam mu taalif ay téere yoo xam ni jullit yi ak murid yi itam dañ ciy jariñu bu baax a baax a baax ndax kat moom ci jàng ak jàngale la doon yëngutu loolu itam taxoon na mu bind ay téere yoo xam ne itam ku soxlaa jàng soo ko gisee taalif nag moom sëriñ Suhaybu Mbàkke nu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñu mën cee ràññee téere bu ñuy wax xunratul xayni am na beneen téereb xam-xam bu mu bindaan moom sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñu koy wax buqyatul muridiin buqyatul muridiin boobu nag sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci kàllaay may arab nag la ko bind ba tey sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag taalifaatoon na beneen téere téere boobu nag ñu ngi koy wax xusoolul taqwuuf ak yeneen ak yeneen i téere yu sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim taalifa lépp ngir jagleel ko julli di rawatina taalibey seexul xaddiim yi ndax moom yarkat la woon jàngalekat la woon jàngalekat googu mu nekkoon ak yarkat googu mu nekkoon te féete woon ci dëkk bu sell bii di Tuubaa ci penc moom ñu koy woy di pencum sëriñ Soye bu Mbàkke taxoon na itam képp koo xam ne ni nekkal nga fi ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim di ab xalifaam sëriñ Soye bu Mbàkke itam defoon na la ab sëriñ di la roy def la itam mag ndax ginnaaw magam ja cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke noonu itam ni la toppe woon cheikh Mamadul Faadal Mbàkke def ko mag def ko sëriñ ba tax na cheikh mamadul faadal mbàkke moom sax bi mu génnee àdduna ci atum 1968 sëriñ soye bu mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ginnaaw cheikh mamadul faadal mbàkke itam noonu la toppee woon magam ja ndax ñoo bokk soxna mariama jaxate muy sëriñ touba cheikh abdoulahad mbàkke nangul ko itam di ko liggéeyal magam jooju di sëriñ touba cheikh abdoulahad mbàkke sax bi mu génnee àdduna sëriñ soye bu mbàkke moo woolu sëriñ abibu mbàkke imam ak ku ñuy wax sëriñ mohammed haza si nekkoon imaam itam taxaw magam joju di serigne touba cheikh abdoulahat mbake ngir ñu wajale ko ci dekk bobu di touba belal ginaaw buñ ko wajale ba nopi nak liñ ko indi ci dekk bu sel bi di touba rakam ja cheikh abdou khader mbake julle ko ginaaw cheikh abdoulahat mbake cheikh abdou khader mbake ñom ñaar mom ben lañ won ba tax ne itim lu takku ci njabootu cheikh abdou khader mbake serigne soye bu mbake mo leen jangal mom cheikh abdou khader mbake mom ibnu serigne touba cheikhul khadim serigne soye bu mbake ibnu khadim rasul moko taxaw ginaaw serigne touba cheikh abdou khader mbake mu fo boobu léppam nag jébbal sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke moom sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasul ci xilaaf ak sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke sax la génnee ginnaaw bu ñu àndee atum yàlla ba tax na itam lu takku ci njabootuk sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke moom ñoom ñoo bokk fu ñu dëkk te itam ci xilaaf ak sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke la génne àdduna muy ci atum 1991 yeneen doomu baayam yi mbokkal xaadim rasul ñooñu itam kasaalika ndax sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ibnu sëriñ tubaa seexul xaadim ñu takku itam ci njabootug borom dër bi sëriñ soin bu mbàkke moo leen jàngal moo leen yar cheikh mohamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaadim itam naka noonu cheikh abdou samat mbàkke ibnu xaadim rasul ñoom ñaar moom ñoo defandoo lépp ndax ginnaaw bu soxna mareema jaxate génnee àdduna la sëriñ tuba seexul xaadim sàkk woon ci soxna xari mbaar sill ngir mu boole sëriñ soin bu mbàkke ak cheikh samat mbàkke mosam yor cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim moom itam kasaalika benn lañ woon ay xarit lañ woon ba tax na bi sëriñ soin bu mbàkke ibnu sëriñ tuba Touba Seexul Xaddim génnee àdduna ci atum 1991 Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Xaddim Rasoul moo ko taxawu moo ko jullee noonu mu ko defee woon ci ay doom doomi baayam yu góor itam noonu la ko amale woon ci ay doomi baayam yu jigéen mboolem bintu Xaddim Rasoul yi ñu ci takkoo takku Serigne Souhaïbou Mbacke tudde na leen doom moom Serigne bu Mbacke foofu mu nekkoon nag di péncam mi ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim moo ko sanc tudde woon ko Daaru Rahman ba tax na itam lu ëppoon ci naar yi wala gan ñi nga xam ne nii ay sërif la di dalal kon bërëb la bu seexul xaddim fonkoon bërëb boobu itam seexul xaddim daana fa nekk lu takkoo takku ba tax na ñaari doomam yii di cheikh mamadul mustapha mbàkke ibnu xaadim rasul ak cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasul foofu la ñu dalee alxuraanul karim kon pàkk boobu bokk na ci pàkk yi nga xam ne ni doomu aadama yi saa su ne dañ faa war a dem di ko ziyaar ba tax na itam kii di sëriñ Suhaybu bu mbàkke pàkk boobu ñu baree bari fekk nañ ko fa ci wàllu ay kilifa ñu mën pàkk ba ziyaare ji itam kii di sëriñ soye bu mbàkke maam abdul aziz si malik dabaax xalifa tiwaawoon moom itam saa bu masaa ñëw tuuba ci jamonoy sëriñ soye bu mbàkke daana dem ca pénc ma ziyaare ko ziyaare itam kii di sëriñ soye bu mbàkke im nu xaadim rasuul sëriñ abbas sàll bu lugaloo itam bi mu dem na itam ca pénc moomu ziyaare ko ziyaare itam sëriñ soye bu mbàkke im nu xaadim rasuul ak yeneen nag yeneen i kilifa yu ñëw na ci pénc moom di péncum daar raxmaan ñu gën koo xam ci péncum sëriñ soye bu mbàkke ñëw ziyaare si pénc ma ziyaare ziyaare sëriñ soye bu mbàkke buñ doon lim kilifa ya fa jaar ñëw ziyaare si ko daa juum waaye ci gàttal rek ñett ñooñu ku leen tudd xam ne duñu ñu tuut ci diine ji duñu tim ñu tuut ci réew mi ba tey sëriñ soye bu mbàkke ku fonkoon alxuraanul karim la ba tax na daana ko jàng daana ko jàngale fonk googu mu fonkoon alxuraan ba tax mu ko daa jàng ak di ko jàngale ma wax leen nag lan moo ko waraloon ndax dafa amoon bés bi mu nekkee ci daara nijaayam jooju di sëriñ Hamsatu Jaxate ku baax sëriñ Tubaa Seexul Xaddim woolu woon sëriñ Hamsatu Jaxate wax ne soo demee nga indil ma sohin bu te ànd ak moom ginnaaw bu sëriñ Amsatu Jaxate ñëwaatee ci dëkk bu sell bii di Touba jël si sëriñ sohin bu Mbàkke ngir yóbbuwaat ko njaareem ci loxoy waajuram Xaadim Rasuul njaareem googu ginnaaw bu fa sëriñ bu Mbàkke ñëwee nag àndoon ak nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate sëriñ Touba Seexul Xaadim yanoon na ko genn gaal goo xam ne ni bu ci alxuraanul karim nekkul itam ay xasida ma nga ca ngir sëriñ sohin bu Mbàkke yanu ko ñoom ñett nag ñu ànd kees gu ñu ubbi jàll ca ga ca des sëriñ sohin bu Mbàkke rek ibnu Xaadim Rasuul yanu gaal ga ba ñu egg nag ci genn kees sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag wax nag kii di sëriñ Suhaybu bu Mbàkke nag mu yenneeku gaal googu nag mu yan woon ginnaaw bu mu ko yénneekoo nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim laajoon na sëriñ Suhaybu bu Mbàkke xam nga lan moo taxoon ma yanoon la nag lii di gaal gi sëriñ Suhaybu bu Mbàkke nag tontuwul woon ca jataay ba waaye nijaayam sëriñ Xamsatu Jaxate moo ne ko Mbàkke Bàll soo ko ko xamalee da dana baax ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di wax sëriñ Suhaybu bu Mbàkke di ko wax ne dama bëgg nga fonk alxuraanul karim jàng ko alxuraanul karim ba muy ñetti yoon ca la ko waxee itam te jataay ba na ko soñee bu heure boo toogee te itam del jublu penku loolu itam taxoon na ñi nga xam ne nii miinoon nañ bu baax a baax a baax toogaayub sëriñ soñee bu mbàkke ibnu xaadim rasuul fekk ko mu toog te jubluwul penk niiw na lool ba tey seexul xaadim di ko wéy nag di yokk ca jataay ba di ko wax ne soñee bu bala ngaa defati dara del wax bisimilah ca jataay boobu itam ba tey ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim mu ngi doon wax doomam jooju màggee itam bu ko bàyyee te mu sëq loolu itam taxoon na kii di sëriñ soin bu mbàkkee fukki fan ak juróom yu ne daana watu te jataay boobu nag ba ñuy tàggutoo la ko sëriñ tubaa seexul xaddiim joxoon àlliway xànjar ja àlliway xànjar jooju nag ku seexul xaddiim masaa dalal alxuraanul karim ci la la dalal alxuraanul karim muy cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke ci gàttal daal ko ñu wax na seexul xaddiim dalal na la alxuraanul karim ci àlliwa joojee la la dalale alxuraanul karim àlliwa jooju nag ci loxoy sëriñ soin bu la mujj moo waraloon mu jox ko ko xam naa ku dellu ci kenn ci njaboot gi daa gis ne moo denc Aliwa ja waaye Aliwa ja moom mu ngi ci loxo loxoy waa kër Serigne Souhaïbou lii nag moom moo tax Serigne Souhaïbou Mbàkke fonkoon alxuraanul karim ba tax na yëmaliwu ko woon ak dara ginnaaw bu magam ja di waajuroom wa génne àdduna di seex Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul ci 1946 nag Serigne Souhaïbou Mbàkke taxawal daaray alxuraan ngir yeesal nag ndigal la ko waajuroom wa waxoon di Xaadim Rasuul ndigal loolu mu doon waajur waajuram xaadim rasul ci fonk alxuraanul karim tax na itam nag yoonu murit itam bari na ñoo xam ne itam jariñu nañ ci ndigalul xaadim rasul loolu mu joxoon doomam jooju di sëriñ soye bu mbàkke sëriñ soye bu mbàkke léppam weeru koor la ci la feeñ jamono muy juróomi fan yi weeru koor ga ci la génn kon moom ci weeru koor la feeñ jamono ci weeru koor la génn àdduna weeru koor googu nag sëriñ soye bu mbàkke ku ko fonkoon la ba tax na itam tuubaa ñi ko miin bu baax a baax a baax saa sonnerig sëriñ soen bu mbàkke ga sone di wax ne dog jot na ci tuubaa ak li ko wër sonnerie googu nag sëriñ soen bu mbàkke moo ko fi defoon ngir di sàkku nag jullit yi mën a xam seen waxtu dokk ak seen waxtu xëdd ndax boobu kat rajo yombul waaye sonnerie gi nag daana xett li doomu aadama yi ba tax na itam ñu baree baree baree bari ci tuubaa ba nëga ni sax ci la ñuy sukkandiku ndax sonnerie ga moo leen di wax ne dog jot na sonnerie googu nag sëriñ soen bu mbàkke moo ko indi woon tuubaa moo ko fi defitim cim péncam sonnerie googu nag laataa mu fiy nekk ci péncum sëriñ soen bu mbàkke mbàkke mën nañoo wax ne dañ daa def ay pexe rek wala di tëggantu ay weñ ngir wax jullit yi ne dog jot na mu am bis nag sëriñ soin bu mbàkke woolu ko ñuy wax mbay jenn dip ab électricien ñu bari miin nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba ngir di ko wax nag mu dem ndakaaru fekk fa nag ku ñuy wax dàmbooc ngir mu wutal ko nag loo xam ne nii da heure bu sonee danañ xam ne dog moom waa Touba danañ yëg ne jot na Baye daa mbooj moomu nag mooy waajur suñu nattangoo Aminata Mbooc kon Baye daa dog jot na sonori googu nag mujj gi itam nag Touba màggoon na ba sonori gi nag dajul Touba Njuga Kebe nag moo jëndaatoon geneen sonori gi fi nekk sonori googu sax moom moo fiy dox ba nëgëni kon sonori gii nekk ci péncum sëriñ Souhaïbou bu di sone na dog jot na ginnaaw gu njëkk ga Baye Dame Mbodj moo ko jënd waaye gii fi nekk nag jamono jii nag Njuga Kebe di milliardaire u Xadim Rasul moo ko jënd ci ndigalul sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke ngir muy wax jullit di ne dog jot na sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke nag am na baree baree bari itam tudde nañ ko doom cheikh yi toppoon xaadim rasul itam ñu ci bari tudde nañ ko doom ba tax na ay turandoom itam am na ay tur yu ñu leen di wooye yu wuute am na ay turandoom yu ñuy wooye soye bu am na ay turandoom yu ñuy wooye aboo waaye nag li ëpp ëpp ci ay turandoom aboo lañ leen di woowe moom sëriñ Souhaïbou Mbàkke sëriñ Souhaïbou Mbàkke itam ba tey bari na itam luñ ko tudde ci miléem réew moo xam ay dispensaire wala poste de santé ay jàkka muy bërëbu jullikaay ay centre commercial ay école ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ tudde sëriñ bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul moom sëriñ Souhaïbou Mbàkke ko amaloon njariñ nag lii di askan wi la amal njariñ googu mu amaloon njariñ nag askan wi tax na itam cheikh si ñu ci baree baree bari fob nañ seeni doom tuddee ko ko ñu ci baree bari itam ko ba tax na itam am na ay cheikh yu nekk foofu ci kër sëriñ bu mbàkkee ñu man cee ràññee sëriñ Abdou Wahab Diop ibnu sëriñ Masamba Diop Sam ak ku ñuy wax sëriñ bu Dieng ibnu sëriñ Baara Dieng ibnu cheikh Issa Dieng sëriñ Laay Diouf ibnu sëriñ nu Diouf Lambaay ibnu sëriñ alin Diouf Lambaay sëriñ May Amar ibnu sëriñ ibnu Amar sëriñ Souhaïbou Fall ibnu sëriñ Moustapha Fall ibnu cheikh Ibrahima Fall làmp Baabul Muridiina ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneeni cheikh yoo xam ne ci kër googu lañu sukk kër googu lañu yaakaar ngir jëmmi doomu xaadim rasul boobu di sëriñ soyen bu mbàkke moom sëriñ soyen bu mbàkke moom ginnaaw bu bindee lu takkoo takku ñu takkoo takku itam bind nañ jëmmale ci moom bii di xarnu bi cheikh Moussa Ka fi muy tudde lenn ci doomu seexul xaadim itam ma ngi fay tudd turam soo demee itam ci téere bii di jasaawu sàkkooru jéeri ji mbooleem fu cheikh Moussa Ka di tudde njabootu xaadim rasul gi itam ma nga ko fay tudd waaye taalibeem bii nag di aboo gi way na ko itam ay way yu takkoo takkoo takku moom doomu di sëriñ soin bu mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram ci darajay waajuram woowu ko yar di soxna xari mbaar sil soxna xari mbaar sil moomu nag moo yar sëriñ soin bu mbàkke ginnaaw bu waajuram wa soxna mariama jaxate génnee àdduna ci ndigalul bàyyi ko ci at moom nag lay doog a ñàkk nag waajur wam xam di soxna xari mbaar sil kii di waajuram di soxna xari mbaar sil moom la ko seexul xaddim moom waxoon ne boole kook seex abdu samat mbàkke boole yor kon kii sëriñ soin bu mbàkke soxna xari mbaar sill la xam soxna xari mbaar sill moom nag mi ngi génn àdduna bisub altene benn fan ci weeru koor ci atum 1408 ci gàddaay gi altene benn fanu koor ci atum 1408 ci gàddaay gi mu dëppook bisub lundi 18 avril 1988 lundi 18 avril 1988 sëriñ soin bu mbàkke nag doog a xam ne mi ngi doog a ñàkk waajur ndax soxna xari mbaar sill dem na soxna xari mbaar sill moom nag ak sëriñ soin bu mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee moo ko jébbal boroomam ci armeer yu mag yi soxna xari mbaar sill moom mu defoon waajur kii di sëriñ soin bu mbàkke itam tuddee na ko doom ndax soxna xari mbaar mbàkke mi ngi fi bintu sëriñ soin bu mbàkke cheikh abdou samad mbàkke moom mu bokkaloon soxna xari mbaar sill itam sëriñ soin bu mbàkke itam tuddee na ko doom ndax cheikh abdou samad mbàkke soin bu mi ngi fi kon ku fonkoon waajuram moom woowu la ku dëdd woon àdduna la moom sëriñ soin bu mbàkke ku maandu la woon moom sëriñ soin bu mbàkke dëdd googu mu dëdd woon àdduna tax na itam lenn loo xam ne ni mbirum àdduna la amulu ko woon solo loola itam tax na lenn ci jëfi àdduna yi mënoo koo tudd lu tëdd sëriñ soin bu mbàkke ndax yitteelu ko woon képp kum yar itam ci loolu la la tàggat ci loolu nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1991 ci feebar bu ko tëral doomu seexul xaddim bi ak soxna Mariama Jaxate di sëriñ soin bu mbàkke borom Madiyana mi ngi génn àdduna guddi ajjuma fukki fan juróom ñeent ci atum 1411 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci atum 1411 ci gàddaay gi mu dëppook vendredi 5 avril 1991 vendredi 5 avril 1991 ci kër googu mu féete woon ci Touba di pencum sëriñ soye bu Mbàkke ci xilaaf ak magam sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke moom sëriñ soye bu Mbàkke ay atam nag tolloon ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent rakkam ja Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasul matul moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci péncum boppam ci teewaayu nag murit yu takkoo takkoo takku ci yoon wi moom sëriñ bu Mbàkke ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ Ahmadou Mbàkke mim faye waajuram wa Xaadim Rasuul ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Say Mbàkke moo ko wuutu ci le 5 avril 1991 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ Ahmadou Mbàkke dañ gën koo xam ci sëriñ Cheikh Say Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou Mbàkke yàlla na ko fa suñ boroom guddal aw fanam ak mboolem ay rakkam yu mu siqal sëriñ Souhaïbou Mbàkke suñ boroom am na ko man na ko yàlla na ko def sëriñ bu Mbàkke nag am na bés buñ ko daa fàttaliku ci li ñu tuddee ak màggal ndax ci atum 1998 lañ njëkk fàttaliku kii di sëriñ bu Mbàkke ci li ñu tuddee ak màggal màggal googu itam nag amul woon bés fixe njaboot gi dañ daa def rek heure buñ ko jekkoo ci at mi màggal ko màggal googu itam guddi ak bëccëg la daa doon waaye nag biñ demee ba ci atum 2005 te lañ soppi nag léegi kat ci juróomi fan ci weeru koor lañ koy fàttaliku ndax bis boobu moo dëppoo woon ak feeñu jamono sëriñ soin bu mbàkke ci atum 2006 ba nag ci la njëkk a fàttaliku sëriñ soin bu mbàkke ci màggal ko ci juróomi fan ci weeru koor màggal gi nag ci lañ ko jëlee ci guddeeg bëccëg tuxal ko rek léegi ci bëccëg kon ci atum 2005 ba nëgëni ñi ngi fàttaliku sëriñ soin bu mbàkke juróomi fan ci weeru koor mu dëppoog bis bi mu feeñoon jamono ñu di ko fàttalikoo nag ci pénc moomu ñu ko denc di péncum sëriñ soin bu mbàkke xaadim waa waajuram goroon ko tudde woon ko daaru raxmaan ci foofu la ñuy fàttalikoo sëriñ soin bu mbàkke ñuy ñaan ci doomu xaadim rasul ba ka mu faye woon abo madiyana ñu ko daa wooye sëriñ soin bu mbàkke yàlla ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram taas ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey abo madiyana amiin بن بق بق ولا بن يتي ولا بن خمنتيف ولا لن جو كان جو كل هنتوا